baax maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax di nuyu suñu baay suñu wasiila suñu sëriñ Sidi Ahmed si xalifa radiyallahu anhu suñu sëriñ Babacar si Malick radiyallahu anhu bàyyi di leen ñaanal yàlla yàlla nañ fi yàgg ci wér eh, képp ko bokkal eh, di ko ñaanal suñu yaay madame Cissé di nuyu famille membre communaux yi fi nekk ñëpp di leen ñaanal yàlla di nuyu suñu mag suñu kilifa yi ci kër gi ñu bunt bi ñoom tonton Razas tonton Ablaye Diop lu ñu nekk nag ñoom eh, di ñaanal suñu bàyyi suñu xay suñu sotti tey sañ nañu sax bàyyi biir ba si wér ci ñun ndax li mu mel ci kër Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu li mu meloon ci maam Cheikh radiyallahu anhu mel ko ci Serigne Abdou Al Amin ko ci maam Sidi Ahmed Sy Khalifa radiyallahu anhu le 25 mars boobu ma wax tout le ñam wàcce waan kaamil kër gi ba pare ci suñu kanamu kilifa màgge ñun fii lañuy ñuy tase ñun bu si góor kon bay bi ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg fi lool ba bi yow ak ñi nga àndal ñëpp la ñaanal yàlla yàlla na la yàlla fay. Euh, di wax nag tey sama kilifa daf fi teew muy Badiane Liass Touré di sama baay di wéy ci ñun yar man tey ku ma bokkal ci sant ngay xaw ma man Touré lay yëngu. parce que moo ma la waxoon Albert waaye rek laa yor ñun xamuñu Ndiassane suñu kon lii rek la ñu a def parce que ki ñu yàq sëriñ am bi mooy sëriñam bàjjëlgation ñun sañu ma wax lu nekkul dëgg mooy sëriñam mooy bàyyi kon tey su ma ñëwee léeg-léeg daf may tooñ ni ma maa appoo bu mag bi yaa appoo bu ndaw kon dañu lay dañu koy ñaanal euh, di ñaanal suñu capitaine suñu mara suñuy maréchal di taarama jaay taarama parce que ñun ba ñu ne ba nga ñu mayee li ñu may yaa xam ne ñu juddoo du ko expliqué ndax du lépp lu nit di wax ci mbooloo nga sañuñu ko sax wante moom nga ñu boole mais bu ñemee yàlla ak ñoom a te bu ñuy def aussi seetaan nañu. Euh, di ñaanal waa LGTBH ndax tout le temps dama leen di jiital sama kàddu bis bi ñu lay fekk kaw maam as nga teg ko suñu loxo ba ñuy defal bërëb ba xamuñu nu ñu ko defaree xamuñu dara li ñu yëkkati li ñu am jox ko luñ ñuy woon par téléphone lañ doon ba ñu paree day defaat ziar lañ fa teew ñoom ñoo ko taxaw ñoom ak ñoom Babacar kon dañ leen di ñaanal bépp yiw yi ñu am yàlla na ñu ko bokk ak parce que yaa ñu boole ngay suñu bàyyi. ñu ñaanal ma Mouhamed Samb aussi ndax wax dëgg yàlla ku ñuy taxawu ma ñu beral ñaan papa ñuy sax dama koy wax ndax jigéen léeg-léeg dafay wéet ci muy def wante ku koy woo ko ndax yaa ngi waaj day tax mu ñem jàpp na ci jàpp ci communication bisam si mu dëgmal yàlla ko yàlla fay ci yàlla moom yàlla yombalal lépp lu mu bëgg moom ak waa association liggéeyam man moom di ñaanal samay collaboratrices parce que lu ñu dox man ak moom ñu mën ñoom ñoo ko jox muy Binta ak Abida wax dëgg fa yàlla ñun nag papa suñu kàddu du sori di ñaanal Babacar Niang papa maam xam sa jaay moo ñu boole le 25 mars 2013 lañu jot mooy wàcce kàmmil kër ga kër sëriñ Babacar Si boobu lii yëpp amul élève laa woon mais comme ni ñu waxee cofeel ñëw dund cofeel ñëw dund Serigne Babacar Sy suñu intermédiaire sama diggante kenn teg mas ci loxo Serigne Seydi maam Seydi Ahmed Sy Khalifa kon wallaahi intermédiaire ku dul Seydi Diagne amul ci intermédiaire parce que barabam laa ko ñaane bis boobu laa ko gis mu tombé le le 24 juin 2011 boobu foog naa ne ay élection amagul mooy lendemain des élections lu man am ci la ma yàlla boole Serigne Sidi Ahmed ma fekk ko fee mu toog fii mu Fatma mbokk yi loolu nekk boobu néegam foofu la nekkoon defar na ma biir ak biti wante kenn du yam si man am njaboot yërëm bu bu ñu ko amee yàlla ak sa barkeel léegi-léegi lan ñu poñe la ni la waxal waaw ndax ñun boo ñu ñee waaw lépp lay sotti parce que yaa xam ña ngay waxal mais ñun yow la wax li ñu lay ñaanal rek yàlla na fi yàgg tëj yàlla na fi yàlla bàyyi yàlla na la fu ñu ko fat ñun xam nañu yëg li la ñuy xam nañu xëy na lu bari doo ko wax ni ci biir lañu def ñun ñëpp bi ñuy xam maam siis melu ngeen ñi mais am nga loo def ñun ba sañat ko ci biti parce que bu ñuy dox sax ñu naan ñu taalibe Cheikh dañu leen dégg kon ciment bi nga bëgg yaa ko xam yàlla la ko yàlla def lépp luy wut ci xadara defal ñoom bu koy defal ci kaw wér ak fekk ñun amul sa fay personnellement dañu lay ñaanal yàlla mais dañu lay ñaanal di la ko ñaanal sa barke maam na maam boo koy luy rab yàllaahu taala an parce que quoi que l'on puisse dire ñooy donay maam ndox koy am ci ñëpp ñu gañe ci ñëpp loolu te luñ na ko yàlla ko sonn ñu ànd ko ñun ñëpp ak sa njaboot jox la ko suñu sañoon dara loolu bëgg ci kër gi doo ko tuuti te tànk boobu la ñuy taxawal ilaa yow ma xiyaamati yàlla boo am dara lu la jaaxal si ma yàlla na la yàlla fay ñu mën ñu laa fay yàlla na la yàlla fay ñu xam nañ ni nelaw yërëm nga ñu fu ñuy dem nga gunge li ñu war la ñu ko def bu ñuy dem Albert waaye yaay bu ñu waa Albert waaye nawee ñu dem kase garaawul dañ koy def def daan naa fa ànd ak ay nit di ko def mais ba ñu fa ànd ak yow lañ ma téye ba ñu boole ci leneen ak ni sax kon yal nañu la yàlla fayal Mouhamed Samb boo ñu baax rek jege maam as bindul كل الخلق حذوا فيها من فاجر ومطيع زاهد الباب